waaw sëriñ bi de moom wax dëgg yàlla loolu nga ma laaj xanaa dana xaw a dis waaye ñu dëgër lu tontu ko rek ndax euh, bisu yu mujj yi sëriñ bi mooy bisu tàmbaleem yi rek ndax bisum bisu ay bisu tàmbaleem sëriñ Touba la ak Cheikh Rafal bisam yu mujj it sëriñ Touba la ak Cheikh Rafal waaw loolu daal laa ci xam ndax moom ci sëriñ Touba ak Cheikh Ibra ci la tënkoon léppam ci la daan tàmbalee léppam ci ci la yemale léppam. ba ci ay kàddum yu mujj it loolu la Sëñ Tuubaa ak Seex mu euh, mujj bi tas ci réseau sociaux yi euh, ñu ngi ciy dégg muy wax sama ne maa yéen samay waa kër maa ngi leen di wax ne ñoo ngi ci suñu mujjantalu jamono mujjantalu jamono nag lépp day gaaw te day bette ma bugg ngeen waajal ko kon moom waxoon nañu ko waaye ñun ñoo ko dégguloon waaye nag ñoo am ci taw tawféex ak cant ndax moom ak sant lañ jàngaloon waaw ak sant lañ jàngaloon ak ngëm yàlla waaw ndax ku gis ni mbir demee ak bis ba mu xëy joxe ay lim kurus ñëpp daal di woo daayira yëpp daal ne ne ñëpp def bas ma la kon day wane ne mooy 66 ans ci ñibbi ñibbi ndax ci même bis bi la waaye ñuy santaat bu baax nag ndax ci ak cant rek lañ yar waaw ci ak cant lañ yar ak gëm sëriñ Touba ak doyloo Cheikh Ibrahima Fall. waaw loolu loolu moo doon yitte sëñ bi ci lépp sëriñ bi. loolu du du ci biti rek la koy defee ci këram la ko tàmbalee ndax dafa mus di wax ne dafa dafa dafa dafa mus wax ne moom sëriñ bi ne ñii ma yàlla booleel ñu tudd ay taalibe ay doom laa leen def bari na ci ñoo xamante ne sëriñ bee leen takkal soxna bari na ci ñoo xamante ne sëriñ bee leen génteel seeni doom bari na ci ñoo xamante ne sëriñ bi da daan reyante di leen jox ni leen dem leen ngeen joxe seen waajur ndax nit amul lu ëpp ay wajuram ndax neena euh, nit ko gis mu joxe bopam serigne bi neena as gor la ci lu jitu waye gor googu nak da ko dund maam ci ay melokaanam ci ay jëfam ba noppi fexe góorgóorlu ba sagal ay wajuram ci lepp ndax lu melni goudi mam Cheikh discours serigne bi lepp ci jeunesse bek lako moy ci ñu jup ak sel ak fonk seeni wajur ak fexé set ak am jom nango liggéey ak bo wàccee lo am teral sa wajur ak dan leen xamal ni nit kat da wara gor gorlu ba fexé yor ay wajuram wax deug yalla Cheikh abdourahman euh, day xamantene wax deug yalla njabot yamale wu ko ak dara mën naa wax ne mo doon xaritu ay njabotam wax ne. Euh, ci lim ñu yar mooy gëm yàlla ci lu mën a xew gëm yàlla ci lu mën a xew waaye nag dafa miinaloon njabootam boppam bëggoon leen lool ba kum ci toogal da ngay jàpp ne moo yow la gën a bëgg ba daanaka ci ci ci veille bi rek bi muy dem ci bis bi mi ngi wax ne sama doom ji ma naan Sëñ Saaliw de bu ma fi gisoon dana ma tooñ ci sama bop bi ni moko def waye nak kuy def kuy dem ci serigne Touba da wara defal bopam waaw kuy dem ci serigne Touba da wara defal bopam bo melokan waye serigne sama dom de mo fekkon dana ma ton serigne murtada mi tok di suñu kilifa di sama mak danaka mo don loxo serigne bi ci njabotam mo don loxo serigne bi ci njabotam serigne bi dal fim njabot wax deug yalla amelul àq njabootam waaw ku baax ku baax ku am yërmande ku laabir koo xamante ne boo musaana ñëw waxuma sax ak doomam waaye doomi aadama boo mën a doon boo musaa musaana ñëw ci moom sa problème lu mu rëy rëy rëy boo agsee ci moom bu fekkee day posé kilo boo ñëwee dootu posé dara waaw xanaa di ko ñaanal rek ndax ñaan moom munta ñak di ñaanal ndax xamnañ ni ne mu nga dekkal ak Serigne Touba ndax waxam jam waxante won ak Serigne saliw ba mu ak mbolo ma ne ko mbacke mbolo me ngi bëri lol te mbacke yomal xiyam gën jëm mënaluma len fa dara Serigne saliw dañ ko sallahu sharif mu ne ko mbacke mu ne ko waxuma yow waxuma sab talibé waye sa wolle rek kep dana tey ci loxom ba tek ko ci loxoy Serigne Touba kon serif abdurrahman ma nga ci loxoy Serigne Touba waye nak mom da dan wax ne yaron touba alayhi salatu wassalam moy sama mam waye luma meuna am dekkale Cheikh rafal mom ko gënal te bari na jeunesse bo xamantene tay ci aduna bi partout dans le monde moo Sidi Ibrahima buñ ko xamé bay dund Cheikh serif abdur bay dund Cheikh ibrahim Fall mi Cheikh serif abdurrahman Fall tiral Xaadimul khadim moko waral kon loolu kep doyna na kep doyna doy na ci lépp wa rahmatullahi